animateur. Le meilleur animateur du monde. Le meilleur animateur. Tu es le animateur. Meilleur animateur. Tey de mënuma wax animateur. Vraiment nouvelle ngeen animateur du Sénégal. Tey wane nga ko tey ci seen Wally Ballago banga nga ne der ku ne xam na ne ku ko mën la ku koy jéem. bokkuñu déedéet déedéet mun ñoo yem mun ñoo yem. moom xam nañu téye micro xam nañuy waxee ci seen. xam ni ngay taxee ci kaw seen. ah lii ku ko mën ku mën def daal. waaw coow li coow daal mu def. mënul baax téye le meilleur. waaw di di peuple la ngi. mais bokkal. barke yonent Yàlla Muhammad. dama pare ci soirée Wally bi. Hmm. yow yaa demoon ci cérémonie bi ma trophée bi parce que mënu ma woon dem parce que dama doon présenté. dëgg la soirée Wally. dëgg la trophée bi dab ma. Hmm. ñu Padros. meilleur animateur. Mhm. sama xol sedd ma am contentement am mbégte. dëgg la waaye rek di wax ni lépp Sénégal la d'abord. Mhm. di wax ni lépp ci waajur yi la. dëgg la sama yaay ju baax jaajëf amante na mhm. lii yaa ko waral. di wax ni lépp gëm sa bopp rek la. donc euh, trophée bii nag du Padros. voilà donc euh, déjee naa ko sama yaay. ko waa groupe E-Média. donc. Euh, dañuy am fierté ak mbégte. Mm. ci li ñu ni Padros meilleur animateur. dëgg la voilà je wax ko. xol bee sedd waaw. Euh, xam leen ni sama xool sedd na. dëgg la waay sama biir xol. kay dama sonn trop trop mais sama xol sedd na. mais li nga liggéey seen wàll bi tey. <laughs> mais mais li nga def ci seen bi tey barki yonent dama tiit. waaw dogal lan la. sama xel da ngaa mën de. mais Kouthika amul xoo <laughs> non mais ndekete yoo. da ngaa mën bay barki yonent bi da ngaa mën de. mënuma wax mais. mais say dégagement ci kaw seen est-ce que mën. dëgg la. bu façon la bu façon. <laughs> mais bu façon trophée bi boole naa la ko. dëgg la boole naa la ci. awa Kunte trophée bi boole naa la ci. ndeysaan donc euh, sama soppe yi. waaw pardon famille yi mënuma lim ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. dëgg la mais adduna bi Sénégal ñëpp. Hmm. trophée bi yéen ci biir. Hmm. alhamdulilah en tout cas. teel a teel l'animateur du peuple. waaw lii bu ñu koy wax. tey confirmation tey nga ko firndeel maanaam confirmation tey la. ba nga yëgee ci seen wàll bi. te liggéey bi tàmbaleegul. tàmbaleegul xam naa loolu may tàmbaleegul di. liggéey bi tàmbaleegul. tey laa tey laa door a xam ne téye la miir nag ndeke yow dama ndeke mais xaw ma. ku ci topp xam ngeen ku ci topp xam ngeen ku ci topp xam ngeen ku ci topp yéen ku ci topp xam ngeen ku ci topp waa ku ci topp xam ngeen ku ci topp balaa waa lii di ñëw nag xam ngeen ni ñun ay xale la ñu rek ay élèves la ñu rek mais nag on a notre professeur à nous Richard. C'est qui le professeur wan na jaajëf waay bés bi da koy jar waaye sama tubéy dafa ëpp quoi sama tubéy bi dafa ëpp parce que xam ngeen safuma bés bi pourquoi parce que bi ñu ne le chanteur du peuple da fi nga xam ne moom la bu Grand Théâtre daal di Faramareen Sénégal ñëpp dañoo préparé bés bi moo tax tout à l'heure wax naa ko Wally Seck tax na tey ñi nga xam ne ñoom ñoo di les taximan ñi ngi gis seen bopp tey tax na tey ñi nga xam ne ñoom ñoo di les coiffeurs ñi ngi gis seen bopp tax na tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les coiffeuses ñi ngi gis seen bopp les marchands ambulants ñi ngi gis seen bopp jaaykat yi ñi ngi gis seen bopp moo tax pour fashion dama dem ba Turquie mu sañsel ñu ñaa xarañ loolu international le snapper du peuple ñaa xam mais ñii ñooy dawalkatu camion yi les camions fermés les camions fermés